amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi dellusiwaat kon ànd ak yéen ci sun jataay yi di jataay alquran nu duppee ko ala maidati alquran xam ngeen ne fukki fan yi jëkk ci weeru ramadan noo ngi doon waxtaan ci ak ubbee goo xam ne dafa aju mag ci alquran alkarim saar wi nga xam ne moo ko ubbi muy suratul fatiha wëlbatiku nekk ummul quran nekk a asabul mathani nekk saar woo xam ne dafa làmboo mboolem eh, li boole axkaami yi nga xam ne ci la alquranul karim di détaillé yooyu yëpp boo ko seetloo am cosaan loo xam ne day dellu ci suratul fatiha loola jot dañ caa jaar tey nag ñu seqi ab jéego ci maidatul quran jéem a xool diggante alquran al karim ak siyaam maanaam chahru ramadan ci boppam chahru ramadan buñ koy wax koor gi nga xam ne dañ ko ci woor mooy la ci jiitu ndax weer la woo xam ne wenn weer képp la woo xam ne bu ñëwee des koy woor ba mu jeex at mi yépp wenn weer wooy wooy ci nekk woo xam ne koor gi farata la jëmmi koor googu yi nag nga xam ne mooy li ëpp solo ci weer wi muy asiyaam alxuraan waxtaan na ci indi na ko defe naa ne baatub siyaam ñëw na ci alxuraanul karim ñetti yoon yëpp nekk ci suuratul baqara te sax sorewuñ fa ñu nekk fenn fa mooy fi sunu borom tabaraka wa taala waxe ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqoon yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm farataal nañ ci yéen alsiyaam muy koor niñ ko farataale woon ca ña leen jiitu woon kon du caagi ni xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mooy xeet yu jëkk woor waaye am na ay xeet yu jiitu woon ci koor xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne koor gi gën ci koor yi ngàtt ngay mooy kooru yonent yàlla daawut daawut aku nitam nañ daan woore nee na dañuy woor bis dog bis woor bis dog bis ba at mi jeex kon dañ doon woor juróom benn weer dog juróom benn weer koor gu diis la woon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw borom bi tabaraka wa taala da leen di jagleel lu bari nag ci ay jagle ndax bokk na ci jagle yooyu barkeel seen mbir lu barkeel mooy loo xam ne mën naa tuut ba noppi pay ga duun xam nga ne julli juróom fukki julli la woon ñu wàññi ko ba mu nekk juróomi julli yoo xam ne farata la ba noppi pay ga des fa nekk payu juróom fukki julli loolu mooy jëf ci gën naa néew waaye pay ga duune na nam war a duune noonu it noonu rek la deme ña daan woor bis bu set wala ñuy def bu ñu wooree tey dog ëllëg nun ñu jox nu fanweeri fan ci at mi yoo xam ne mooy farata ba noppi pay ga daanaka mat am payuk at ndax benn boo def bu nekk am nga fukk defe naa ne fanweer benn bu ci nekk boo ko multiplier par dix fanweer ya dafa lay daal di jox trois cent trois cent li ko manqué am at bu dee ci ay fan bariwut trois cent jours boo ko boolee lu néew moo ko manqué am at loola moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne ku woor weer yi ba mu jeex boo ci tegee juróom benni fan rek am nga kooruk at mi ndax juróom benni fan yi bu ñëwee day daal nekk soixante te trois cent trois cent soixante jours mooy am at ci weer wi ñuy séntu kon farata woon ci xeet yi jiitu woon waaye nuróole leen ko nuróole ko waaye nag loolu teewut noo leen gën a woyofle koor ba noppi sun tuyaaba moo gën a bari seen tuyaaba kon farataal nañ ko ci xeetu lislaam niñ ko farataale woon ci ñi jiitu borom bi ne la laallakum tattaqun loola lim ci jublu mooy ngir ngeen mën a ragal seen borom tabaraka wa taala ki saxoo woor di ko def ni ko borom bi tabaraka wa taala santaane loolu lam koy jural mooy ragal sunu borom tabaraka wa taala kon loolu mooy laaya ju jëkk ji nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala tudd na ci asiyaam muy aay bi tolloog numéro cent quatre-vingt-trois ca suratul baqara yeneen ja ca des nga xam ne mooy cent quatre-vingt-sept sunu borom tabaraka wa taala ma ngay wax foofu ne uxilla lakum laylatu siyaami rafasu ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa afa ankum falaana baashiruhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum wa kuluu washrabuu xatta yatabayana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr summa atimmu alsiyaama ila alleyl wala tubaashiruhunna wa antum caakifuuna fi almasaajid tilka xuduudu allahi falaa taqrabuuha kadalika yubayinu allahu lakum ayaatihi kadalika yubayinu allahu ayaatihi linnaasi laallahum yattaquun laaya jooju kon siyaam ñëw na ci ñaari yoon borom bi nee na daganal nañ ci yéen su ngeen wooree ba ngoon guddi gi ngeen di ànd ak seeni soxna soxna yooyu kat yéere lañ ci yéen yéenit it yéere ngeen ci ñoom loolu dàkkental la maanaam sutura lañ ci yéen yéen sutura ngeen ci ñoom kenn ku ci nekk li nga séq ak sa moroom dem na ba àgg foo xam ne fu sori la fu xóot la waaye teewul lu ngeen di suturaal la kon jigéen ji sutura la ci boroom këram waaye boroom kër beet sutura la ci ki nga xam ne mooy soxnaam dafa am kóllëre gu dox seen diggante goo xam ne sutura moo ko lal loolu danañ ci dellusiwaat borom bi tabaraka wa taala mu teg ci ne alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba aleykum wa afa ankum bu jëkkoon dañoo tere woon góor ñi bi ñuy door a farataal weeru koor tere woon nañ góor bu guddi jotee su xasee nelaw rek su yeewoo araamal nañ ci moom muy ànd ak soxnaam su fekkee dafa nar a ànd ak soxnaam daal ci guddi googi du dagan muy nelaw day fanaanee xoole ba asamaan si loola moo doonoon farata ja waaye nag am ñoo xam ne dañ doon rocc ku ndànk di sàcc léeg-léeg nelaw jàpp leen ñu nelaw buñ ci jógee it aajooja ja dikkal leen ñu ànd ak seen soxna ba noppi di ko nëbb waaye borom bi tabaraka wa taala kenn mënu koo nëbb dara moo tax mu ne alima allahu yàlla xam na annakum kuntum taxtaanoona anfusakum xamoon na ne yéen a ngi wor seen bopp yéen a ngi nax seen bopp waaye nag fa taaba aleykum mu jéggal leen ndax xam na ne lam farataaloon ci yéen dafa diisoon wa afa ankum mu baal leen fal aana baachiruhunna léegi nag dagan na ngeen mën a séeg seeni soxna bu guddee moo tax uxilla lakum laylata siyaami rafasu ila nisaikum loolu la aaya ja tàmbalee baachiruhunna wabtaxu ma kataba allahu lakum na ngeen sàkku bu ngeen di ànd ak ñoom na ngeen ca yéene li nga xam ne loolu la yàlla di farata la leen di yàlla di dogalal la ëpp solo ci yoo xam ne objectif li ci wàllu sëy mooy jële ci ak njaboot goo xam ne gu baax la mu teg ca ne wakulu washrabu xata yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajr ko defee nag guddi googu gi ngeen di ànd ak seen soxna yi mu dagan lool man ngeen di lekk ka itam nag ba kero euh, fajar di xar summa <laughs> atimmu siyaama ila leyl su ngeen noppee ci loolu nag ngeen continuer ak seen koor nag ba mu àgg ci guddi ga maanaam fu jant ba soo daal la tàmbalee ca fajar ba jant bi soo daal loola na ngeen ko woor waaye nag wala na wa antum aakifuuna fil masaajid kon loola beneen atte la bu mu génnewaat ci atte bi daganaloon ndax nee na woon guddi gi mën ngeen a seeni soxna waaye nag fii mu ne déet itikaaf nag bokk ci ki xas nekk ci itikaaf moom mënatul a ànd ak soxnaam ci guddi googu kon euh, ki duggule itikaaf ci fukki fan yu mujj yi ci koor gi kookal nañ tere woon muy ànd ak soxnaam ci guddi ya noonu lañ ko ko teree ba tey moo tax mu ne nag tilka xududullah lii mooy frontière yi yàlla fala taqrabuha bu leen ko jege néewul bu leen ko xotti néewul bu leen ko jéggi waaye bu leen ko jege la wax kadalika yubayinu allahu ayatihi linnaasi laallahum yattaquun noo nii la yàlla di leerale aayaam yi ba nit ñi mën koo xam suñ ko xamee danañ ragal seen borom tabaraka wa taala boo xoolee laay jële mu tudda siyaam foofa muy laaya cent quatre vingt ja lam daaneele mooy laallakum tattaquun laaya jii mu tudd siyaam muy koor ñaari yoon moom itam mi ngi ko daaneele linnaasi laallahum yattaquun kon nga xam ne koor daal digganteem ak ragal yàlla am na ak jote gu am solo goo xam ne alxuraan mi ngi koy waxtaane kon incha allah loolu mooy sun jotaayu ëllëg diggante koor ak ragal yàlla ci alquranul karim nan la ko alxuraan tëgge ak nan la ko tërale ak nan la ci wootee kon loolu jataayu tey bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina wassalaamu aleykum wa rahmatullah